bismillahi irrahmaani irrahim am na ko sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaara lawoo masalaaj ana saalum mu ni ko ña sëriñ bi ni ko mbaa nekkuñu di ma tëkkale kenn ci li bi tiim mu ni ko akay ah waaye ña nga leen di duma rekk sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaara lawoo ni ko ku ñu may tëkkaleel danoo yënduwul ci ker balaa ngoon a jot mu jug ci xel yi génn ci xol yi làmmiñ noppi ko tudd siiw na mas nañuy jàng xasida am ñu fay wax Sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaaloo ni diglu leen ñépp maase mi xeram mu wax ka jàng mu taxaw daa di ni xanaa xamu leen ni malaayka yaa ngi juróom benneelu asamaan di leen too di leen toogu day nuroog diglu te jenn tooki malaayka yàq na lu jaam defoon teggiloo ab jaam aljana teggi mooy jaar faneen yóbbu nab jaam sawara bismillaahi kookee daal di àggale njàng ma siiw na am na naar bu masalaay Sëriñ Tuubaa xaadaloo law loo lu tax Ibra du julli ak yow ni nga fonke lislaam sëriñ bi ni ko demal laaj ko ko siiw na loolu mooy gàttal gi su ko defee war nañuy bàyyi xel ni nit kenn du ko gën a bëgg boppam nit kenn du ko gën a xam boppam li ci ëpp te mbooleem li ñu xam ci julli Cheikh Ibra radiyallahu taala anu xamoon na ko daana ko digle di ci soññee bu baax ak mbooleem jaamu yàlla yi waaye jaam bu nekk day am lu ko boroomam di nattoo wallahu aalam Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaloo bi muy doore ñëw Jolof mel na ni boroom suuf samu nekkoon sàkku woon na mu tuxu sëriñ bi sàkku ci moom mu dikk ci moom fanaan ak moom bu fajaree mu ànd ak moom génn ba mu ni ko fii la suufam yam mu dindi ay néegam te dem dëkk ca suufu si yàlla sa ca des ba mu ko defee ba ñu xëyee di dox di dox ba boori tisbaar Sëriñ Tuubaa xaadaloo maxtaloo ni ko noon naa sa suuf jeexagul mu ni ko ba ñu xëyee ba léegi daa mel ni tànki fas yi jugul fi mu nekkoon sëriñ bi ni ko loolu loo ci xam mu ni ko ñaanal ma ma dellu sëriñ bi ni bismillaahi nu ñaanal la bokk siiw na lii dañuy leeral bu baax jafe-jafe yi nga xam ni sëriñ bi daana ko am ci suufu jolof teewul lépp mu koy muñ ak di ko rafetal ba kenn du xam ci moom lu dul ak sant wala aw alam ñoo ci njànganam sëriñ Tuubaa ci téeméer bi ak ñeen fukk ak benn sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaarloo nee na samay dencukaay tëj naa ko damm naa doom ya mooy ceeb ya mënee su ko yootaan te duma ko tijji te ak gunu yowmal xiyaam siiw na waxiin wi xam naa waxiinu kiy nettali la waaye lu wér la noonu la ko binde day xamle ni am na yu ko yàlla may yoo xam ni da koy nëbb te ciy sant yàlla ba yowmal xiyaamati wallahu alam am na ku ma sa wax Sëriñ Tuuba xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo daa am lu ma bëgg a laaj sëriñ bi ni ko laaj baax na lool dana tax a xam mu ni ko bi ma la gisee dama defe ni yaay Muhammadul Mahdiyu sëriñ bi ni ko man ci sama jëmm duma muhammadul mahdiyu waaye maa ko yoral cummikaayam ci njaboot gi lay feeñ cummikaay mooy li muy summi buy def dara mboolem lu baax li des ci àdduna lépp ci sëriñ Tuubaa la nekk xaada lawo law maxtaara loolu ku xam dara xam na ko su ko defee ñooñu ñuy wax ci xadiis yi ñu doon ñuy feeñ ci mujjug jamono ñépp mën nañoo ñëw ba dem te kenn du leen xam ku dul ku yàlla namm mu xam leen te it seeni tur mën naa soppiku wallahu aalam sëriñ tuuba xaadala wala maxtaloo nee na isa nu ngeen mën a def ma bett leen yowmal qiyaam mu ni ko xawma noonuy bette sëriñ bi ni ko jannatul firdawsi lal ba daw dawaan nga xam ni rasulillahi salallahu taala alayhi bi alihi wa sabi wa salama moo cay toog ak i waa këram xanaa bu ngeen ma ca fekkee ma toog maag waa këram da ngeen am mbett mu ni ko waawaaw sëriñ tuubaa xaadalawoo laaw maxtarlawoo ni ko faw nag mu am siiw na lii sëriñ bi da ko daan wax lu bari waxin yi mooy wute walaaw alam am na ku ma sa fekk sëriñ tuubaa xaadalawoo laaw maxtarlawoo fi ab bërëb muy ree moom rek mu ni ko xanaa jaaxle nga mag muy ree moom rek waaye li may ree boo ko xamoon mu ree loola bi ma nekkee ci géej gi dama nekkoon ak kilifa gu mag ci ñoom ak kilifa gu ndaw ku mag ka bañ ma lool ku ndaw ko bëgg ma lool di ma defal lu nekk di ko nëbbu kilifaam am bis mu dikk fi man ma laaj kon mu ni ma ki ma yilifoon maa ko yilif léegi ma ni ko yàlla baax na waaye booba seen kilifa nanguwul sama noflaay ñu daal di may jële foofa yóbbu faneen kookee di ma bind bataaxel lu bari ba mujj gisatuma bataaxelam ma seet ko àdduna gisuma ko ma dem bar sàq ga nga xam ni fa la yéefari di nekk gisuma ko ma dem bar sàq gi julli di nekk fekk ko muy joowu ci njoowaanul wurus ma ni ko xanaa kiiru du saa waaja mu ni ma axakay ma ni ko lu la indi fii mu ni ma sopp la te li ma ci gën a reeloo mooy lu tubaab daa def bàyyiwu ci dara waaye sopp gi mu ma sopp moo ko yóbbu àjjana sopp ma rekk am njariñ tey ak ëllëg siiw na قلوب من لم يحبوني على وجل ولا يلاقون ما راموا ولا البابا حوى الذي يحبني من تجبا ولا يفارق الخيار النجبا وشو الذي يحبني يبيض يوم شهداء تبيض وكل من أحبني أو مال إلي فارسق هدى أو مالا أعطيت حب المصطفى وأكتفي بذاك فالمعطى كفافا يكتفي wa fil hadisi al mar'u mahaman ahabba su ko defee képp ku nar ta texe doo mën a sopp sëriñ tuuba xaada loxo law maxtaar loxo saa su sunu borom nammee ak texe ci yow moo lay soppuloo sëriñ bi xuloo bu jumlati lasina aflaxoo li yatawajjahat wa rabbil muslihum sëriñ tuuba xaada loxo law maxtaar loxo am na tubaab bu mu masa wan ndayam muy wax ak moom te boobu ndayam nekkul ci réew mi da koo wax mu dugg ci am néeg mu dugg fekk ko fa ba mu waxee moom ba noppi gisatu ko siiw na sëriñ bi lu mel noonu daana ko def itam ci ñu faatu woon wala alam gis nañu ci waxi mag ñi ñuy wax ni sëriñ Tuuba xaadalawoo laaw maxta loxo bi muy doog a jug ci saahir teggin la daa digle ñépp am ko ba mujj muy xamle ni léppam ëllëg la ko jame ku bëgg àdduna na ko wuti ba mujj muy xamle ni lu waaye bëgg ci àdduna na ñëw mu may ko ko siiw na li may déggee ci waxin wi mooy amul tànki ginnaaw ba tey boo gisee lu bari ci yenn may yi du ko tudd da ciy sant yàlla subhaanahu wa taala li ko waral mooy day rëy ci nun ba bu nu ko déggee mën naa tax ñuy bàyyi lu nu war te àdduna këru liggéey la képp ku fi nekk ak foo mën a toll ci yàlla subhaanahu wa taala danga war a góor góorlu tey jëf looli moo di ak sant اعملوا آل داود شكرا وخليل من عباده الشكور والله أعلم وأصدق حديثا sëriñ tuuba xaada la law maxtaaloo mas naa woote ba ñu ñëw mu ni ndax ñépp ñëw nañu ko ñu ëpp ñëw nañu booba daa taw sëriñ bi ni ma ñaane leen ci bàq bi ci ker gi am ma ñaane leen ci bàq bi ci naaj wi sëriñ ma numbera de law taala anu jug ni kon ñaanal ñu ci bàq bi ci naaj wi cheikh bi Faal radiyallahu taala xanu ni ma numbe yàq nga cheikh Bamba kàddoom yu njëkk mat naa dégg siw na ñëw ci njàngalem Serigne Touba ci téeméer bi ak ñeen fukk ak juróom-ñett Serigne Maam Mor Anta Sali Kan radiyallahu taala xanu mas naa wax ni sëriñ bi moo dox suñ digg ak àdduna ak alaaxira siw na mel na ni li tax mu wax loolu daa am ci njabootam ku doon sàkku muy def lu mel ni li nit ñi di def mu wax ko loolu walaaw alam sëriñ tuuba xaadalahoo law maxtaaralahoo mas naa woote ba ñu daje mu ni ma sàmba jugal mu jug sëriñ tuuba xaadalahoo law maxtaaraloo ni ko ndax seen nga ka mujj ci mindeefi mu ni ko fii fépp aw nit la sëriñ bi ni ko lii fii rekk la am mbooloo mu tol nii nga dajale leen fi bërëb te bu ñu fa jugee fu ñu dem di defar nañu fa fekk fii rekk la am fii lay njëkke fii lay fudul fi mbolo mu fa dajé dañu leen di dimbandikoo waye dimbali wuñu leen siwna ñu ñew ci ñangalem Amna touba ci téeméer bi ak juroom fuk amna kilifa ak naar gu massa gané ji amna kilifa ak naar ku massa gané ci sëriñ touba khadalo wala maktalo bi baril bernde ya lol mu ni ko li ma dama bëgg buma duggé ci bammel duma am lu ragal sëriñ Tuubaa xaada law maxtaloo ni ko bu këree gooye ma defal la fa lu la kenn mënalul siiw na kilifa gi kan la dégg naa ci ay nettali ñuy wax cheikh sahdu abi la radiallahu taala anu bari na itam xeeti waxiin waaye lii mooy gàttal gi wallahu aalamu am na tubaab bu mas a ñëw ci sëriñ Tuubaa xaada law maxtaloo ni ko France gépp ñu ngi lay gërëm di la sant sëriñ bi ni kon ñu gërëm ku leen gërëmul sant ku leen santut ni ko waxal li la tax a jug mu ni ko damay laaj luy dara ak genn wàllu dara ak lu dara sëriñ tuuba xaada law maxtaaloo ni ko nun ak lu ànd ak nun mooy dara lu ànd ak yéen mooy genn wàllu dara lu andut ak nun andut ak yéen moo dul dara siiw sëriñ bay saar radiallahu taala anhu daa ma sabax sëriñ tuubaa xaada lahoo law maxtara lahoo yàlla sëriñ bi ni ko seen naa ba xam ni li ngay wax dëgg la ci yow waaye topp sil fii ma wax la lu ma waxul kenn wan la lu ma wanul kenn may la lu ma mayul kenn daa di yëkkati der ba mu toogoon ni ko làmbal fii mu làmb daj am pax sëriñ tuubaa xaada lahoo law maxtara lahoo ni ko yooral sa loxo mu yor loxoom daj lu mel ni ban sëriñ bi laaj ko loo daj mu wax ko ko sëriñ bi ni ko génne ko mu génne ko sëriñ bi ni ko lii ma lay wax yow rek laa koy wax lii it yow rek laa koy wan ban ban sun borom tëni woon aadama mooy binde woon aadama maami aadama seen maam lii moo ca des fii laa ko denc yow rek laa ko wan bàyyil mu dellu ci pax mi géeju penku ak sowu yépp ñi ngi yëngu boo yeexee ñu fenkoo Babacar Sarr juruma kenn kenn juruma ñi ñuy tudd di ma tudd bu yowmal xiyaamee may naa la ngay seeni baay siiw na sëriñ bi lu muy bind di ko wax waxtu wu nekk mooy jaamub yàlla la subhaanahu wa buy liggéeyal yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa nekk itam xaritub yàlla subhaanahu wa taala xarit nag ci zahir day sañ cib xaritam lu bari man ci moom lu bari wallahu alam serigne touba xaadalawoo wallahu maxtaaloo mas naa wax balees tëral naa nit ku weex teg la ci seen kaw ba ba nga fi juge. am na naar bu serigne touba xaadalawoo wallahu maxtaaloo masa wax sama am na ku ma jiite mu dem àjjana siiw na waxin yi mooy wuute waaye benn nettali la wallahu alam sëriñ tuuba xaada la law maxtaara la mas naa wan sëriñ mbàkke maane radiallahu taala hanu jigéeni àjjana ñuy jàng xasiid ak hamat suleyma booba da doon sàkku ci sëriñ bi denc soxna waaye ba ni mu làqoo dencul soxna loolu mooy gàttal gi mel na ni am na ñeneen itam ñu mu ko wanoon wallahu aalam sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaara lawo mas naa lem ñetti téere ci am naar bu tudd xasan sarif ci ñetti dërëm waaye ñett junni la ko mujj fay mooy téere yi arawdul faaiq fatul aqfaal tafsirul ni siiw na am na ku masa laaj sëriñ Tuubaa xaada lawoo la maxtaar lawoo mbirum muhammadul mahdiyu sëriñ bi ni ko bu dekkee du leen génn ndax ba may nosru yi ci mbindeef yi nosaale naa ko bu fekkuloon àdduna sant mbàkke wu ko xan daale itam du leen génn wala xëndaalewu ko itam du leen génn laaj bi ak laaj ba ñu weesu woon xëy na muy benn wala muy ñaar te loolu laa gën a jàpp ndax ñi ko doon laaj bokkuñu tontu yi itam woote na walaw alam jàngale moomu siiw na sëriñ Tuubaa xaadalaw law maxtaloo mas naa wax sëriñ Malick Ndiaye neen ñépp ñu julli ci fi takkusaan bisub gaawu weeru tamxarit wi mu noppaloo fukki fan ak juróom benn bi mu sëlmalee ni ma sàmba mbooloo mi ndax ñépp ñëw nañu mu ni ko ñi ëpp ñëw nañu sëriñ bi ne hàkkasaa ma sàmba noonooy waxin wi daldi ni maa leen woo di leen yëgal ni yàgg fi moo yàgg naa fi gàttumab tànk jëf naa ngeen gis wax naa ngeen dégg bind naa bafi mooy bàyyi fi wooteloo nañu ma woote naa ñi wuy si wàcc nañu maa ci des ñi wuy wàcc naa ñoo ci des bàyyi naa leen nag seen coowul weeru koor ak julli juróom waaye danaa leen digal ndax yéen a ngi jëm ci jamono joo xam ni juróom yii moo cay tax a mucc noppi jekki jaamu yàlla liggéey loo am doyloo ko siiw na am na bi Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaloo salmal tàkkusaan wax ni ku julli si woon na toog ndax dama bëgg waxtaan ak yeen na ngeen ko jàpp bu baax ndax tey ngeen koy mujj am sa borom dama soxla faneen waaye yeen laa fay demal ma bëgg leen a dimbali di leen dénk loo xam ni dana tax du ngeen ma réer du ma leen réer ma sàmbali lu mu daay joxañ jàkka ji mu ni ko jàkkala sëriñ bi ni ko tey laa fi mujj sa borom wàcce ma ci julli juróom daal di yëkkati kaamil ba mu yoroon ni ko lii lu mu mu sëriñ bi ni ko tey laa koy mujje yor saa boroom wàcce na ma ci alxuraan wàcce na ma ci digle ak tere waral ko ci ñeneen ma bëgg leen a dénk yett mooy ñett yoo xam ni bu ngeen ci jàppee du ngeen ma réer du ma leen réer sama doom yii sama xasaayit yii sama jumaa jeefa tuubaa sama doom yii yar naa leen jàngal naa leen teg naa leen ci yoonu siraatul mustaqim ku topp ci ñoom duñu réer duñu la réeral sama xasaayit yi ñoo di samay tànk te jëmm soo toppee tànk ba bu yàggee nga gis lu bokk ci moom sama jumaaj yee ku ca feeñ dootoo réer ba fàwwu ku ca réer dootoo feeñ mooy sama ndigal lu muj daa di wëlbatiku ni bàyyi naa lee nag seen coowul weer siiw na nettali bi li tax ma andiwaat ko nii daa gën a jotal walaawu en lam